bisimila dal leen ak jàmm ñu dikk ak ci li gën fës ci l'observateur la koy doore mi xëy nag di wax ci lu ñeel wàllum élection législative mu ne recours au conseil constitutionnel la liste des suppléants de Pastef attaqué la réplique salée de Ayib Daffé ñi nga xam ñoo di ku jëg politique gi seen xemmemteef jamono ji nag du leen lu dul fexe nag ba invalider li nga xam te moom moo di liste waa Pastef ndax nag ñi nga xam te ñoom ñoo farandooy Macky Sall yi ak Karim Wade daal dinañu déposé mandataire yu Pastef yi waaye nag ki xam te moo di mandataire bu Pastef di Ayib Daffé nag moom tontu na leen tontu bu forox lool yéen journal bi di l'Observateur yi yéen i kaay journal bi tamit nañu lu ñeel wàllum njàngi mekk njàngale mi ubbiteb l'école bi gannaaw ba nga xamante daal dinañ wuññi benn ndongo boo xamante dafa muur woon ci benn l'école catholique li nga xamante moom moo di ministre bi yor lu jëm ci wàllu njàng mekk njàngale mi daal dina signé benn arrêté nag boo xamante ni mu nga xam ne rek ni bépp tout tànk ni da nga bëgg a takk croix wala nga muuroo am nga sañ-sañ nga def ko daal di dem fa ngay jànge noonee la ko l'observateur yéeni kaay daal di xam ne direct news nañu nag flou autour des marchés publics entre AIE Power et APC mu ne l'ARCOP suspend l'exécution l'ARCOP nag moom daal dina dakkal benn pa marché boo xam te daanaka mënees na ko xayma ci luy tolloog quatre-vingt-dix milliards te la jublu woon mooy daal amal courant ci yenn gox goxaan ci biir réewum Sénégal waaye nag gannaaw ba nga xam te ni kër yi nga xam te ñoom ñoo seq boobu lépp projet juboowuñ ci

journal bii di L'As quotidien Le Soleil yéenikaay nañu nag ñu ngi nga xam te moom moo di di Le club Sénégal émergent dénonce une agression lâche ñi nga xam te nag ñoom ñoo di waa club Sénégal émergent ñoom ñu ngay naqaru na nga xam te noonee la ñuy attaqué njiitu réew boo woon Macky Sall gannaaw ba nga ci réewu Maroc am na benn doomu Sénégal bu dajeek moom ca l'aéroport bu yëkkatee kàddu yu ñagas jagleel ko ki nga xam moom moo fi nekkoon njiitu réew ba woon ko teg loxo sax laata ñu koy bàyyee vingt nañu nag élection législative anticipée di novembre l'absence politique la nga xam moo ñeel wàllum politique ci mbir moomu le journal bi xëy na def ci jàngat bu yaatu yaatu le na wax ci lu ñeel wàllum déclaration des militants de Malick Manga gannaaw ba nga xam te ni publié nañ liste yi Macky perd son ange du sud ki nga xam moom moo di Aminata Angélique Mangane bokkoon ci parti APR nekkoon ci bët saalumu réew mi moom nag daal di ne woon gannaaw ñi nga xam te ñoom ñoo di Macky Sall ndax nag dañu mer ba foto ca la ñeel wàllum liste yooyu ndax nag amul benn yoon boo xamante ni tudd nañ leen ci biir liste yi l'éveil quotidien nañu nag lu ñeel wàllum suqali Casamance le plan Marshall moom moo di njiitu réew bi Bassirou Diomaye Diakhar am na benn ba plan bu boo xam te def na ko nag jagleel ko kitaalumu Orihimier journal bi waa Grand Place nañu au chevet des illustrés di Dande Mayo Madana Kane fustige l'attitude du face à l'urgence ñi nga xam ñoom ñoo di waa Pastef nag tontu nañu ñi nga xam ñoom ñoo bëgg jóg jamono ji ngir ñu daal di invalider bopp Ousmane Sonko bopp titulaire ak bopp suppléant yi ñoom nag ñu ngay xam ne rek di ñoom duñu leen bàyyi benn yoon ñu daal def la nga xam te lu ñu mel nag ba ñu ñu ko sax ba dem fa nga xam te moom moo di haute cour de justice noonu la ko réew mi quotidien daal di xam ne le quotidien yéeni kaay moom itamit xëyaat ci agression bi nga xam amal nañ ko njiitu réew bu woon mu ne la caution de l'État le ministre des affaires étrangères moom nag mu ngay sàkku ci ambassade bu Sénégal ba nekk ca Rabat foofee ca Maroc mu daal di porter assistance ki nga xam moom moo di soxna soosé nga xam te moom moo songoon njiitu réew bu woon Macky Sall maanaam daal di nekk ci wetam ñi nga ñoom ñoo di waa APR nag ñoom naqarlu nañ xam te ci mbir moom lee noonu la ko le quotidien yi ni kay xam le journal bi tamit nee ñu Pastef mu ngay tontu ñi xam te ñoom ñoo di waa takku wàllu Sonko et électeur et éligible ki nga xam te moo di Ousmane Sonko nag moom mën na wote waaye tamit mën na nekk candidat noonu la ko ay daal di xam le lu ñeel wàllum le quotidien yéen i kaay nañu l'arco suspend le de la ZER avec ay power EPC waaye tamit lu ñeel wàllum élection législative yooyu ba léegi Barth et Sonko liés par le nga xam te moom moo di Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz nag ñoom ñoom ñaar danañoo jàmmaarloo ci yooyu lay jongante waaye tamit nekk na ñaar ñoo xamante ne daanaka dañoo xaw a niroo jaar-jaar ci wàllum politique lii quotidien nañu nag lu ñeel wàllum législative yi autour de leur éligibilité Barthé son Sonko jamais l'un sans l'autre yi ne ni moom moo di Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias daal daanaka ñoom taarix daf leen daal di boole ñu ne amul benn décision boo xamante ni motivée n'a à ce jour été transmise au maire de Dakar ki nga xam te moo di maire Ndakaaru daal amul benn décision boo xam te jébbal nañ ko buy wane ni moom daal di nañu koy condamné ci li nga xam te ñu ngi ko doon toppe mu ñeel mbirum Ndiaga Diouf waaye tamit journal bi ñu de peine complémentaire le code électoral de 2021 n'est applicable pour des faits que s'il soit une décennie en 2011 Barthélémy Diaz et Sonko le même sort ñoom ñaar daanaka fi mu toll nii ñoo bokk atte noonee ko lii quotidien daal di xam ne journal bi tamit ne ñu fa nga xam moom moo di ci cour Sainte Bernadette benn xale bu jigéen boo xam dafa muuru woon nag moom la ñu daal di dàq ci l'école ba ki nga moo njàng meeg njàngale mi di Moustapha Bamba Guirassy moom nag daal di da génne benn arrêté la nga xam ni mu ngi koy xam ne ci biir daal mooy tout tànk bu ci nekk am nga sañ-sañ takk croix wala nga muuru dem jàng ci école bala ne xam la ko xam ne ci biir arrêté bi yor yor quotidien nañu nag luy tolloog milliards de francs CFA en ans pour faire renaître l'économie de la Casamance loolee di koppar yi nga xam moom la ñu dugal ci koom ko France la ñu bëgg nag mooy suqaliwaat gox boobee moo xam ci wàllum koom gi waaye tamit ñi nga xam ay daw làqu la ñu woon ñu delloo si waat leen ci seen i ndax nag danañu amal benn opération de déminage bu yaatu yaatu ndel yi nga xam te nañ ko ci biir gox ba ñu daal di koy sulli noonu la ko journal bi daal di xam ne l'info quotidien nañu nag recours contre la candidature de Sonko Pastef desing kii di Ayib Daffé ak waa Pastef daal ñoom daal di nañu yëkkati ay tontu jagleel ko ki nga xam te ni moom moo di Macky Sall ak Karim Wade ñeneen ñoom seen candidature bu Ousmane Sonko daal di neenal liste bopp titulaire ak yooyu suppléant yi le républicain yéenikaay nañu à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives Amadou Ba et sa coalition font peur ki nga xam te moom moo di Amadou Ba ak coalition am fi mu toll nii daanaka ñëpp la ñu tiital loolee di kàddu le républicain yéenikaay le point quotidien xëy wax ci coowal marché public bi nga xam te dox na ci diggante AE Power EPC ak ASER di kër gi nga xam te mooy yor lépp jëm ci wàllum électrification rurale gi nga xam te ni moom moo di ARCOP daal di nay jël dogal nag daal di dakkal la nga xam te ni moom moo nekk boobu projet ndax coow la nga xam te ni moom moo ci nekk jamono ji di xaarandiku nag yoon daal di leeral la nga xam te ni moom moo ci lëndam jamono ji l'évidence quotidien dikkaat na sax ci mbir moomu la mu ne exécution du marché de l'électrification de mille six cent localités attribuées à la euh, Power EPC l'ARCOP ordonne la suspension immédiate la nga xam te bëgg nañu ko jamono jile mooy nag ñu dakkalagum projet ba nga xam te ni indi nañu ay leeral ci la nga moo dox ci diggante kër yi nga xam te ni ñoom ñu ko seq le point acte nañu nekk législative di 17 novembre Amadou Ba victime di retour de Macky ki nga xam te moo fi nekkoon ilimaan yi jawriñ di Amadou Ba nag moom del sug Macky Sall du doon loo xam ni dana baax ci moom noonu la ko journal bi daal di xam ne mu ne avec le retour de Macky les anciens ministres et responsables yi nga xam te demoon nañu ci Amadou Ba bu moytul danañu delluwaat fa nga xam ni moo di ci seen kër daal di dem ci gannaaw Macky Sall waaye tamit mu ne coalition jàmm ak ay njariñ ñoom bëri na ci ñoo xam te ñu ngay tekki seen ndombal tànk Aliou Sall nekk rak ci njiitu réew boon Macky Sall moom nag mu ngi itamit dana tekki ndombal tànkam noonee la ko journal bi xamle libération yéeni kaay nag lu ñeel wàllum délinquance de haut vol mafia bi nga xam te amoon na ca trésor public nag yoon mu ngay wéyal di def liggéeyam ci mbir moom la am na ci ñetti nit ñoo xamante daal dinañu leen teg loxo ka nga xam te ni nag moom moo doon fay mbir ma moom nag moo daal di war porter plainte ba li nga xam te ne moom mooy di boobu lépp giraawaali nag ñu daal di ko ubbiwaat noonee la ko libération yi ni kaay xam ne moom moo di Ilimani jëwriñ ji mu dem na ca Casamance wax na nag la nga xam te moom moo nekk le plan Diomaye pour la Casamance nekk plan bu yees boo xamante ne ni am na luy tolloog ñaar fukki dogal ak ñaar gouvernement boobu Sénégal daal di koy jàll la ñu ci jublu nag mooy fexe ba dëkk bi nga xam te ni moo di Casamance mu gën a naata noonee bi daal di xam ne le verdict yéeni kaay nañu la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe la nga xam te moo di coow li dox ci diggante benn soxna sa doomu réew boobu Sénégal boo xam te mu nga woon ca Rabat ca bu Casamance ak ki nga ni moo fi nekkoon jiitu réew di Macky Sall loolee nag ki nga xam te moo di jëriñ jor lu jëm ci wàllu jokkalante beeg yeneen réew yi di Yacine Fall yëkkati na ay kàddu daal di sàkku rek ci ambassade bi nga xam te moo nekk foofee ñoom nag ñu daal di taxaw doomu réewu Sénégal bi nga xam te moo di soxna soosee nga xam te ni moo yëkkati woon ay kàddu jagleel ko njiitu réew ba woon di Macky Sall ba ñu daal di woon koy teg loxo le verdict yéenikaay xëy na di kat ci mbir moomu le tribune yéenikaay nañu ne classement du pays attractif pour les affaires mu ne la banque mondiale exclut le Sénégal banque mondiale journalu Bougane Gueye Dany bi dina génne nañ ko ci réew yi nga xamante ñoom war nañu mën a ah, dalal ay gan ngir nag ñu daal amal ay yëngu-yëngu ci wàllum koom-koom noonee la journal bi xamle Téral Quotidien nañu nag vol Royal xamante ni ci parti Pastef mu ngay dànkaafu képp koo xamante bëgg nga attaqué borom këram mu ne la mise en cause arrêtée puis libéré ka nga xam moom moo defoon lu ni mel jàpp nañ ko ba nuppi daal di koy mayaata afia le club Sénégal émergent ñoom itamit ñu ngay dénoncé ba nuppi tamit di condamné loolee nga xam te am na foofee nga xam moom moo di ca Maroc mbokk mu nekkoon li gënoon a fës yi yéenekaay ñu doon leen ko jox dig daje ëllëg incha allah jërë vous sur votre chaîne YouTube DKR et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.